yàllaahu yaa man laa ilaaha xayruhu yaa man yajiibu lii dawaaman xayruhu salli wa sallim yaa rahmaan asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokki julli mbokki taalibe yi kon noo ngi leen di nuyu te di leen ziar ñu ko waxee woon rek ci gannaaw ñu nekkaat ci wàccaayu Magal Taïf di Magal Cheikh Amadou Mbacké Gaïndé Fatma ak Serigne Mbacké Mouhamad wàccaay woowu nag tax ñu lay taayee ko fas yéene waxtaane mag ñi nga xam ni ñoom la Cheikh Moustapha àndaloon wala ñoom la Cheikh Moustapha joxoon ndigal ngir ñu sanc Taïf mu mel ni dëkk yooyu nag ñoom kon ñoo jiitu Taïf waaye dañ dañ ko doon lay taay ngir fas yéene sanc Taïf waaye Taïf yi ñu sanc ko ngir fas yéene waajal liggéey jumaa ji mm. euh, ni ñu ko jaaree ci dëkk yi rek kon ñu fii ci Daaru Njaay boobu nga xam ni sëriñ Fallou Ndiaye sëriñ Daaru Xasan moo fi nekkoon sancoon ko àndoon ak ay dëkkandoom mel ni sëñ Omar Diop ak sëñ Fallou Sarr ñu ñëw fii nag ngir incha allah fas yéene waxtaane ci cosaanu dëkk bi ak sanc baak ak digganteeg Cheikh Moustapha ak seenu nekkin yàlla dogal ñu ne ci Daaru Ndiaye waaye toog ak sëñ Cheikh Mbacke Ndiaye moom sëñ Moustapha Diop moom sëñ Abdourahmane Ndiaye waaye fekk sëñ Ablaye Ba ak sëriñ Cheikh Diop ñoo nag sëñ Mor Silla ak mboolem ak mboolem mbokk yi ñu àndal yëpp rek ma ne lii nag kon jub rek mooy lay taay màggalu taay fi incha allah. waaye ñun ñu tàmbali rek comme ni ngeen ko waxee maanaam ci lu ñu wax nag lu ne te xale yu ndaw a ndaw lañ maanaam demuñu ba ko fekk ba suñu waajur sax maanaam fi waaye lu ci mën a am ci ñi nga xam ne suñu kilifa lañ ci jamono ji nekk muy mag ñi ak suñu kilifa ci lañ ko déggee ñoom ñu déggu ci ñeneen yilifoon ci ñeneen seen i maam seen i mag kon bu ko toppee defe loo xam ne doon loo xam ne wér lay doon ci li ñuy njëkk wax mooy ci niñ ko déggee dëkk bi yaakaar naa wax nañ ne moom lañ njëkk sanc ci euh, tay li ñu si jiblu mooy ngir maanaam euh, nekk waaj waaj waajtaay wax na ni dañ ci mën a euh, sanc tay wax nañ suñ wax nañ bi bi bi mu sant bi mu naale tey dafa joxe ndigal ñu ñëw fi sanc daka naa sax dama tëkkul nag maam li ñaata la ko jiitu waaye xam ne mbokk yi topp man dañ ko leeral diñ ko euh, sancee ba noppi at yu néew xam naa lañ ci bëriwut ñu sanc tey ngir waajale sanc tey moo taxoon ñu dox leen ñu dox leen ndigalul ñu sanc loolu daal moom jàpp lañ ko xam naa leneen li ci des it sëñ Ablaye bi mu ñëwee maanaam diggante maanaam jamono bañ ko sànci comme jamono dal ko ko sànci ak ka ca topp ak ban année lañ sanji dëkk bi ak taarix yi am yëpp lu ci xam daal dana ko xam soob kon ñu taxal ko di kàddu di kàddu kàddu gi di jéglu baax a baax dëkk bii di Touba Ngaye nag dañoo wax ne sëriñ waa Fallu ci ndigalul Cheikh Moustapha ndax Cheikh Moustapha dane woon na wut góor yàlla yu nin bat seen borom ñu ñëw ci tundutaay bi sanc ko ñu fiy bay ay tooli alaba ngir waajale ko jumaa ji ngir liggéeyee ko jumaa ji ndax jumaa ji woon eh, dërëmu taalibe yi kese lan amoon yéene def ko ci li ñu mag ñu wax waaw ñu ci leen fi indi sëñ Fallou njaay sëñ Fallou Sarr ak bay Serigne saar ñu ñëw gor eh, dëkk yi muy Daaru Salaam ngay lee ak Daaru Njaay gi sëñ falu njaay nag jotu fee yàgg ndax wax nañ ne sax at mu njëkk mi fi njëkk am eh, dañ doon sasu ci tooli alarba ba kenn ku ne di wax ne danaa joxe nangam ñii di wax junniy bëri ñii di wax junni sëñ Fallou Ndiaye moom ñetti eh, téeméeri bëri ko la waxoon lu tolloog ñaari at la fi am rek eh, daal di wuy ji boroomam eh, suñ ma sàmba ummi yàlla na yàlla yokki leeram rak la woon sëñ daaru dégg naa moom la suñ murum si bëggoon a fal ba mu waxee mu ne ko man kat sama mag la woon wante sama doomi mag la woon wante ñooy samay sëriñ kon wóorumaa falu ci ñoom ñu ne fi daan am rak ju nek ci réew ma de ñukay wax mbay fallo bobu ma ngay ci jambo suñ ko fi indee dina man boko boko jappalé dana mel fallu nday mi wala mu mu raw ko dinañ jëlé sëñ bay indi ko fi sëñ bay fallo yaakaar naa ku ne dégg na ko ci yoonu mu mu non jambar jo xam ëpp na xel mo fi nek eh, momit ba ba mu yagg mu baye ko baye Serigne eh, Serigne Moussa Diop mi tay hmm. mi yor dekk bi muy Serigne Ibrahima hmm. di rakam ñom ñaar ñu bokku nday mu baye ko dekk bi euh serigne Abdourahman momu hmm. mo fi nekk ba 91 euh liggéeyu sanc bi sax nga xam serigne mbacke soxna lu da ko fee taxawal doog dem muy kër sanc gi manam moko tam ba liggéey ci liggéey bu sori euh 91 dal la fi bayiko Eh, sëñ Moussa Diop bi mi wuute ko fi di doomam kon da lol jot nañ ko xam ci dëkk bi dat yi nak xamna né euh dana xawa jafé jafe ndax mag ñi fi néwon di tak mu ñu takki dat te wuute da ci am motax manam duma bëgg jox ben dat bo xamné xeyna comme ci média la keneen da koy dégg demi wu nonu ba indi ay werante waye te calale gi mom ni la toftalo muy dëkk bu kiimaane nak dëkk bo xamné ay wal yi ñoo ko del ndax bu ne la ñaari doomi sëñ eh, sëñ Mourou Moussa mhm. am na doomam bu fi nekkoon mooy yaay sëñ Cheikh Mariam mhm. ñu ne la doomu sëñ Baara mhm. tamit nekkoon na fi kon ñaari sëti sëñ Touba yoo xam ne directement ci ca sëñ ca lan nekkoon na fi muy maam Soxna Mbacke muy waajuru eh, sëriñ Lamine Ndiaye ak soxna Daba ndjay mi nga xamne moy wajuru Serigne Cheikh mi mom mhm. mi nga xamne setu surtout suñ Cheikh mi ngeen doon waxal mhm. setu suñ baara la direct mhm. ndax eh, man soxna Mbàkke bi mi bi sëñ Sidi mokhtar li tok su doon goor mom moy nek khalifa xalifa boba ah, wajuram mi nga xamne moy suñu brahman timit xamna ñu bari dana na xamne suñ bey fallo la ni gëna xam waye mo doon ma ne ko xamne manam njare gep ko xam bopp ci daru rek xam nga ko ndax eh, fi dekk bi ñuy wax ni hmm. man na ne jibril eh, wala ñi yoré malaaka yi yoré aljana hmm. ñew nañ ci neegam bi hmm. ñu neeg bi ngay gis ni ndax sey Ibrahima mo tok fi ne caareen ge ngeen jaar muy dëkku bay Serigne sar ak tidiane dafa nekkon mu tuddu Mor Mbay Mor Mbay mom nak bimu faato faatoo daal di ñëw ca jeli nak mom bimu faato nak nee na dafa dem daan ne man diw coow ak malaaka yi ni leen man àjjana Taayif laay dëkk sëñ Abdourahmane noonu la ko dégg noonu la ko nettalee eh, bi malaaka yi di weranteeg ñoom nag ñu ne ko yow foo sukkandiku ni ci yi Taayif ngay dëkk mun leen man kat laa doon liggéey ñu ne ku ku doon sa jëwri mun leen Abdourahmane na malaaka ñoo ànd ak moom ba ñëw fekk ko ci néegam bii mun néeg la bii nii mm-hmm. nee na mu daal leen séeréel ne kii de musuma santaane àllarba ci gisuma ko ci kon loolu wan na ko wan nañu ko ci bopp euh, foofu rek la ñuy sukkandikoo ne kon dëkk la boo xam ne sëñ Mourou Moustapha moo joxe ndigalul ñu sanc ko ñi fi nekk tamit booba ba léegi ci ndigalul sëñ Mourou Moustapha loolu ci la nekk ndax ku fi nekk nekkal sëñ Mourou Moustapha rek yaa leen moom maanaam yow la ñuy déglu boo waxee ñu def ca tere loolu nag day lu kii maa loo xam ne ëpp na xel daal ah, ëpp na sama xel bu baax rek lañ ci def ak gërëm am na ci xam loo moom lu mu fa wone la mm-hmm. loolu la kon day tekki ñi rek la mag ñu yoroon daal mm-hmm. moom yóbbaale wuñ ko waaye mi ngi fi kon loolu leen kon ñu ngi suñu ñaan rek suñu borom gën leen dëgg gën leen kattanal ba lii ñu waajal màggal gii nga xam ne wàccaayu màggal Taif rek la mm-hmm. suñu borom ci kattan ak wér bañ àggale ko nañ ko bëgg ci bàgg Seex Xaadim